loo set loo set loo set loo set. waaw fii. Doudou Sané. naka mu. waaw sant borom bi bu baax a baax. kalandoo gàllaji rek mooy la. da ngaa di kalandoo gàllaji. non non. loolu. waxoon naa la bu ko indi indi nga combat bu ñu dese nii euh, combat grand bañ bi suñu borom defal ñu ci ndam euh, nañu trop waa Diofior waa région de Fatick gis nañu taxawaay bi gars yi taxawaay nañu dëgg ci bés bi quoi jëmal nañu bés bi te lii la ñu soxla woon quoi chanteur. yaa ngi pare le set. waaw may pare set. moo tax la nga wàcc ci lutte simple bi. moo tax gisuñu la nga wàcc ci lutte simple. Ah. waaw gis nga moom laay waajal nii ci préparation laa nekk euh, di woo fan si di woo ñëpp. ñu ñëw jàpp ci combat bi le 7 novembre bi. mbaa René Seres René Seres grand combat la quoi waaw. ah. non non adi loolu <laughs> dañoo ma dara ok.